entre 1h et 1h30 du matin. Quand été informé, euh, automatiquement, euh, on est venu sur les lieux avec les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre. Euh, depuis ce temps-là jusqu'à maintenant ñu ngi koy fay mais alhamdulilah pratiquement euh, benn foyer rek moo des benn cantine donc. bu fayee rek euh, lépp dina dina dina dina dina sedd ah di wax ne metti na vraiment li fi yàqu bari na trop macha allah mais sant yàlla comme bakkan rotu fi ak heure bi mu ko defee euh, loolu moom def naa ne loolu jar naa sant yàlla donc euh, voilà donc noonu la demee présentement l'origine du feu n'a pas été décelée Euh, on va ouvrir des enquêtes pour voir. Mais apparemment, on nous di que c'est du à un court-circuit, euh, problème d'électricité. Donc, euh, loolu lañu jàppagum pour le moment. Euh, monsieur le préfet est-ce que mën nañoo xam euh, seen jafe-jafe maanaam pour fay lakk gi lan la. waaw surtout accès bi accès bi pas plus tard que démb démb ci suba def nañu réunion. bi sapeur pompier jëlee kàddu déploré waat nañ ko. ça fait presque trois ans quatre ans vraiment chaque ñoo ñi ngi koy wax di nga wax accès bi bi ak bouche d'incendie yi yu ci bari sax am na ñoo xam ne dañoo ñëw ba ci kaw ñu def fa cantine ci ay bouche d'incendie donc sur les seize euh, apparemment démb ba démb ñu ngi doon wax ne deux ñoo ci doon fonctionner donc vraiment yàgg nañ ko alerter. Euh, euh, ñaanuñu ko yàlla mais njortoon nañ ne lii bés dina mës a dina mës a am te dégâts yi dinañ bari heureusement nag bi mu amee guddi euh, véritablement euh, ñu sante ko yàlla rek waaw ñu yàlla mu bañ amati. alors yow wan euh, ñun teel nañ ko yëg ah ñun teel nañ ko yëg yëg nañ ko vers les coups de deux heures du matin samay kilifa yabal ma fi. véritablement ma teewal leen fi pour ànd ko ak force de l'ordre bi ak sapeur pompier yi ba heure bii ngeen gis ba 7 de matin ñu ngi fi donc véritablement pour ànd ak ñoom euh, ci lépp loo xam ne war nañ koo def euh, ci lakk bi voilà. alors li nga waaw moom laa wax léegi euh, tantôt li nga xam ne moo ko waral. dañ cee njortogum dara rek en attendant que enquête bi di suivre son cours mais dañoo njot ne patrouille bi fi njëkk a jaar ba gis feu bi déclenché wu dafa jàpp ne ay installation électrique ñoo court circuité moo ko moo ko waral donc euh, loolu lañ jàppagum ne courant la pour le moment en attendant que ñuy poursuivre enquête bi ba am ci lu ñu gën a leex voilà. ndax am na ku ci ñàkk bakkanam non non amul kenn ku ci gaañu sax ba ci ñàkk bakkanam parce que sant nañ yàlla heure bi mu ko def heure boobu pratiquement ñëpp ñu ngi ci kër yi di nelaw donc c'est entre vers les coups de une heure du matin deux heures la ko commencé donc euh, vraiment ñi bari anti taxawaay bu bu rafet muy commune bi di force de l'ordre yi di sapeur pompier yi yoonaa bi mu ne renfort yu jógee ba Diourbel véritablement ñoo ngi fi